saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay Welcome and thank you for joining us. It is with great joy that I stand in front of you today to talk about our school program, a program designed to cultivate minds, nourish passion, and prepare our students for a bright future. Our mission is simple but ambitious, to provide quality education that inspires academic excellence, personal development, and civic responsibility. We believe that each Sudan has a unique potential, and our role is to help them reveal and maximize this potential. In our program, we focus on several fundamental pillars. Academic excellence. We offer the rigorous curriculum that pushes our students to think critically and creatively. Our courses are designed to stimulate the mind and encourage a deep understanding of those subjects. Personal development. We recognize the importance of education beyond books. Our extracurricular activities, clubs, and sport are opportunities for students to discover their passion, develop interpersonal skills, and grow as blessed and resilient individuals. Citizens' responsibility. We train citizens of the world, aware of the challenges and opportunities of our time. Our, our responsibility and commitment to society. Thank you for attention and God bless you. Parents, good afternoon dear lovely students. Good afternoon dear, okay, honorable teacher, good, good afternoon, every, everybody. I am very happy and proud to be in front of you today. Just you're giving us an opportunity to join, to join with you. Now, thank you for coming, and you're giving us an opportunity to okay talk about what exactly happening here in our school, because there is a great program. Okay, wonderful teacher that making sacrifice to okay, to teach and to give knowledge to the students. Now, it is a great opportunity for us to show you a little bit or to talk to you a little bit about absolutely what is happening, what is happening here in our school. As Miriam said a while ago, that's, there is uh, what you call a personal, you're here? I said a while ago, you are giving an opportunity, okay, parents, to give you or to make you know about what exactly happening on, on our school. We are teaching French, we are teaching Spanish, mathematics, English and Arabic. Now, okay, everybody, every day you see your, your, your children or your, your student going and going, coming back. Okay, it is now the opportunity here. We you aware our, ourselves to the opportunity to make you a little bit know about what exactly happening happening in our school. Voilà. Euh, elle a essayé un peu de dire, de là, Mariama, d'expliquer ce qui se passe ici. Maintenant, on vous remercie, vous parents, d'être venus

ni ko waxee dañuy jugee ci presque dañuy jugee ci daara ji yéeg dem ba ni ñuy amee bac lépp mën na xëy fii ci biir ci biir école bi loolu li tax ma jàpp ni mooy ñu commencé ci ustaas xam si ne ñoom ñoo féete ci daara ñoo ngi liggéey bu am njariñ ba gone yi buñ ñëwee daanaka alxuraan ji jiitu seen dënd dana tax buñ ñëwee li yombal liggéey bi loolu lay doon muy araab bi ak lépp lu man doon kon ñu leen di jaajëfal ñoom tamit di santaar bu baax a baax suñu baay mayib moom moo xam si ni boroom borom pastef dëgg la ndax maanaam daa daanaka dañuy jàppee fii di ko jàppee sax école mais koy jàppee daara joo xam ne daal ku nekk da nga ciy liggéeyal bi waaw muy muy loo xam si ni yéeme loo xam si ni taw féex gu doy waar loo xam si ni ñu ngi koy saa suñu baax si ni euh, boo mën di gis ku nekk ka fa nekk comme ni mu ko comme ni comme ni mu ko mënee donc c'est parce que le discours a été bien bien bien lu mais c'est loolu rek la bëggoon wax ci ci ci anglais lay déglu bu baax. ngeen gën a bàyyiwaat xel xam lan mooy importance su xam-xam moo tax bis bi tey ju tuddee woon ko lépp mooy Serigne Touba ak xam-xam. Sëñ Touba ak xam-xam moom boo ko waxee wax nga lépp incha allah xam naa bu bàyyi may ñëwee ci discours am sëñ Cheikh ñëw ci dana dana dana gën a kii kon dañuy woo Cheikh Fall mu ñëw def benn discours am su paree ñu woo Serigne Mbacke Ndiaye ak Ndeye Amy Dieng euh, pour balaa waxtu wee guddi Cheikh Fall tafa dal. bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs. Je m'appelle Cheikh Abdoufal, je suis élève de la sixième. J'ai l'honneur de vous présenter un poème sur mon école. J'aime mon école, elle est inspirante, stimulante et écaillante. J'aime sa petite cour et ses classes épatantes. J'aime ses enseignants, ils sont gentils, compétents, efficaces et fantastiques. Ils m'apprennent le français, l'anglais, l'arabe, les sciences et les mathématiques. J'aime les responsables, ils sont serviables, efficaces et dynamiques à l'école de Taïsir Mararik. J'ai beaucoup de plaisir, j'apprends, je m'épanouis, je m'amuse et je fais plein d'autres loisirs. À l'école Taïsir Mararik, j'ai beaucoup de plaisir à cette école. J'aime mon école, elle est belle et merveilleuse. J'aime mon école en blanc, en vert et dans toutes les couleurs. L'école Taïsir c'est mon cœur enchanté. Merci de votre attention. أيها الحفلة الكريم نحييكم بأجمل التحية وأكملها نحيي أولياء التلاميذ أيها الحفلة الكريم نحييكم بأجمل التحية وأكملها نحيي أولياء التلاميذ والزملاء والطلب والضيوف الكرام الذين يأتون من كل فجر عميق إلى حفلتنا هذا وخطابنا اليوم تدور من الشيخ أحمد بام والعلم العلم أساس تقدم الأمم وقوتها فالدولة التي تترك العلم تترك العلم وتعذب قوتها وتعيش متخلقة عن ركب الحضارة والتطور وقد حرص الإسلام على العلم والتقدم والقوة وأكبر دليل على اهتمام الإسلام بالعلم أن أول آيات نزل الدعوة إلى علم قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهذا يوده أن الإسلام اتصف منذ اللحظة الأولى بالتاب العلمي وجاء المحاربة الجهل والأمية والنشر القراءة والكتابة والمعرفة وقال الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أيها الإخوة الأكارم طلب العلم طريق من الطرق التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة لذا يجب علينا التماس طريق العلم والمعرفة وأن نسي جاهدنا للعلم والتعلم والعلم السبب لحصول القشد من الله تعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أيها الطلبة لقد فرق الله بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وكما أمرنا فريد عصري الغني عن التعريف مولانا الشيخ أحمد الضم على طلب العلم يا أيها الشبيان إن قدتم قجل فقدموا على تعلم العمل حيث نظم نصوص حيث نظم نصوص نصرية العلماء سابقين لأهداف منها تصير الحزب لكي يكون تحفة لكل من أراد حفظه من أبناء الزمن تبسيط معقد تبسيط معقد واختيار لكنما كتبهم لطول زاروا فيها جل هذا الجيل ومن وصاياه وصية يوصي بها المريدون الذين آمنوا بدعوته بتعلم حيث قال أما بعد فإني أمرت كل من تعلق بي لوجه الله تعالى الكريم العقائد والتوحيد وأحكام الطهارة والصلاة والصيام وغيرها من كل ما يجب على كل مكلف وإني تكلفت لكم ولكن بتواريف يكون فيها جميع ذلك لوجه الله تعالى الكريم يا رائم نيل العلم فالزم هذه الأربعة هذه الأربعة أولها أن ينوي بتعلمه الخروج من الجهل والثاني أن ينوي به منفعة الخلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من ينفع الناس ثالثا أن ينوي به إحياء العلم والرابع أن ينوي به أن يعمل به لا بخلافه كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم قبل أن يرفع العلم وبذلك قال مولانا الشيخ أحمد بام فلتقصدوا أربعة للابتداء تعلم لكي سبيل بالهدى أولها الخروج من ضلال والثاني ننفع خلق ذي الجلال ثالثها إحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم حفلة الكريم إنها لشرف عظيم أن أقف أمامكم لإلقاء هذه الخطاب دمتم في رعاية الله وكل عام وأنتم بالألف ألف خير shukran madrasati madrasati al devant une assemblée honorée par euh, le vénérable marabout euh, que je salue monsieur Cheikh Cheikh donc saluer tout le monde n'est-ce pas à votre euh, chacun de ce qu'il est parce que en fait chacun représente quelque chose dans la société donc j'ai proposé ces deux poèmes parce que tout simplement en fait c'est d'abord pour le poème de, de L'école, euh, hein? Hein? l'école privée très Madame, donc c'est une école, je pense pas comme les autres. Là où je suis, par exemple, à Type, nous avons que euh, l'école française. Mais ici, là, on commence par l'école coranique pour ensuite terminer par l'école française. Donc, c'est un, atout, n'est-ce pas D'abord, on, en fait, on apprend euh, la religion pour ensuite apprendre le monde. Donc, c'est un atout. Donc c'est pourquoi je l'ai donné, n'est-ce pas, euh, ce poème, pour tout simplement euh, dire l'éloge de l'école, parce qu'en fait c'est un environnement exemplaire, un environnement agréable, et nous vivons, n'est-ce pas, dans, l'harmonie. Et pour ça, on dit, on dit travail. Donc, l'idée, n'est-ce pas ku toujours dans donc sa dignité voilà donc nañu liggéey loolu loolu loolu mooy loolu la poème bi wax boo ku liggéeyul di nga bëgg te boo bëggee te amoo di nga di nga ko di nga am noo ji noo ji te loolu nag pour nga uti ko leneen n'est-ce pas mën a demee donc nañu liggéey mooy mooy moom la say wax ci poème ci poème bi donc maa ngi remercier tout le monde di di jaa di jaajëfal tout le monde n'est-ce pas parce que tout simplement école bi euh, nu ñu ko waxee accueil bi baax na ni ñu ma accueillir daaw ak ren donc ni ñaan euh, ñu fekkee ko at yu bari te aussi di demander parents d'élèves yi xale euh, yàlla daf ñu ko dénk am jox ñu ay responsabilité da ku nekk ñu xam ne doomam bu ëllëgee dina ko loyoog yàlla te doom nag moom lii war ci moom mooy jàng doom amul xale amul liggéey warul liggéey xale warul lu lu dul jàng ci jàng jàng la toll donc dugal leen seen doom ñu jàng jàng nag amul jàng bon ni ñu koy jëfandikoo moo bon waaye jàng bonul il suffit maintenant ñu jàng école coranique jàng école tubaab apprendre après si décider une conscience moo leen di may ne sax ni faire mën a doxale seen donc nous leen xale yi ñu jàng dugal leen essentiel merci grâce à Allah. Madame et Monsieur, aujourd'hui, nous rendons un grand hommage à une personne spéciale pour nous. Une personne dotée de qualité extraordinaire, une personne hors pair, une personne royale et invidigable. Il ici de notre cher de SVT encourage Monsieur Aliou Diop. Monsieur Aliou Diop, Madame et Monsieur, de ma part et de la part de tous les salaires de cet établissement. Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre disponibilité, votre modestie, votre générosité, votre gentillesse, votre ouverture, mais aussi l'affection que vous avez dans votre travail et votre professionnalisme. Un homme de référence, un vrai patriote car il rend service à son père. Un grand merci à votre tous, Nous n'avons pas assez de mots pour vous dire merci. saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu laar jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay